kawteef 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaar mboolem kuy toppal 94 Walf Sénégal wit fee ci vidéo bu gàtt rek Sadio Mané ak journaliste journaliste allemand yi voilà journaliste bi euh, dégg na ko micro pour mu wax ci micro bi mais Sadio Mané lam ko tontu sonal ngeen ma voilà gis ngeen ko noonu ak journaliste bi gis ngeen ko noonu ak journaliste bi maanaam sonal ngeen ma parce que euh, chaque jour bis bu yàlla sàkk yéen a ngi wax ci euh, moom wax na dëgg journaliste allemand yi dañoo sonal Sadio Mané dañuy bind ci moom di wax ci moom di wax loo xam ni daanaka mën naan yaa ma gën a xam dara nekku ci voilà moo tax Sadio Mané bi ko dékka micro bi loolu leen tontu moo tax xam na leen leen Sadio Mané tontu mais macha allah Sadio Mané euh, loolu day wane ne rek yow ko am grandeur nga ko am image nga ko xam li ngay def ca kaw ca kanam rek ñaancoo bi ca kaw ca kanam rek voilà Sadio Mané ngoog journaliste allemand yaa ngoog waaye ñooñu buñ ko bàyyi benn yoon rek nañ ko topp rek parce que tamit noonu la. parce que tamit tubaab yi yaa ma gën a xam voilà nuyu nañ leen siyaar nañ leen fii ci Fall.